mooy xaaju muñ am na sax ñoo xam ni wastainu bi sabri wasalaati sabru jooju koor lañ koy firee yoo wax ni bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni kullu amali ibni aadama lahu yudaafu alxasanatu bi ashri amsaaliha sunu borom daf ci ak mbaaxam ak yërmandeem nit ki lu mu def bu defee benn bu baax daf ko koy fulal ba mu mat fukk am na yenn nat yu baax yoo xam ne bu ko nit defee sunu borom dana ko fulal ba mu mat juróom-ñaar téeméeri mbir dana ko fay juróom-ñaar téeméeri yoon waaye sunu borom ni ba mu des koor koor nag moom man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp ndax nit ki mënut lu weesu bàyyi ak lekkam bàyyi ak naanam ngir man daal di wax ni kooku moom maa koy fayal sama bopp daal di wax ni ku woor ku ne am na ñaari mbégte yu la sunu borom dencal benn mbégte bi mu ngi feeñ ci fi ngay doge xam nga ni nit bu wooree fa muy doge dana am mbégte mum fa yëg waaye mel ni mbégte mi ci des nag ma ngi koy amee fa muy dajeeg borom saa bu dajeeg borom dana xam la koor daan jariñ am na xadis boo xam ni pakk boobu ma waxoon léegi ci benn xadis bi eh, yonent bi boole woon fa koor ak sarxe ak taxaw guddi wax ni koor pakk la sarxe dafay dafay eh, koor pakk la buy dox sa diggante ak ma yàlla sarxe dafay far ñaawteef bu nit ki defoon taxaw guddi naa fi dafay far ñaawteef bu defee bu nit ki defoon mu wax ko ca xadis Muaaz ibn Jabal waaye dafa am beneen xadis boo xam ne dafa boole koor ak muñ ak sarax lu ci ne mu jox ko cër boppam wax na ni koor pakk la moom dafay tox diggante nit ki ak def lu ñu koy tere waaye muñ ak leer la ba di wax ni sarax sarax nag aw lay la ëllëg layu nit ki la dina ëllëg ci kanam suñu borom yonente bi daan wax ni yéen yéen waxambaane yéen gone yu góor yi ku ci mën a denc soxna ku ci am kattan goo mën a denc soxna na nga denc waaye ku ko ci mënut dénk naa la nga bari looy woor ndax koor dana dox sa diggante ak lu bari ci ay ñaawteef dana dox sa diggante ak lu bari ci ay xememteef yoo xam ni bànneex moo lay puus ci ngay am xememteef yooyu kon daana wax ni yéen mboolem waxambaane yi dénk naa leen ku ci mën a denc soxna na ko gaawe waaye ku ci amul kàttanu denc soxna na nga bari looy woor ndax dana la fegal lu bari kon koor bokk na ci li gën a mën a dimbale nit ci mu tëye bànneexu bakkanam Ibn Mas'ud wax na ni yonent bi daanañ ko gaaral alxuraan ci bépp weeru koor waaw weeru koor wu ne danañ indiwaat alxuraan mu mel ni liñ ko koy woon mu nafaraat ko waaye at mi mu defee nag weer woowu lañ ko ku ci indi ñaar yoon kon weeru koor weeru muñ la weeru muñ la la ko waral mooy ñiy woor danañ muñ ba duñ lekk ci heure yi ñu koy soxla danañ muñ bëgg naan te duñ naan kon weeru muñ la koorit ni ko yàlla farataale ci nun noonu la ko farataale woon ca xeet ya ñu jiitu woon kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum boo demee ci tafsiru ibnu jarir at tabari dafa wax ni ñanu jiitu woon dañoo farataaloon ci ñoom weeru koor ramadan bii ñuy woor ñun moom la ñu farataaloon ci ñoom comme nii ñu ko farataale ci ñoom ibnu jarir fi suñ borom di waxee ni waa an tasuumu xayrun lakum ngeen woor moo gën ci yéen foofu suñ boroom dafay nattale woon jëkk muy farataal weeru koor yi ci nun jëkk muy doon fors dafa doonoon coobarewu rek mooy ku man wooral ku mënut bis bi nga war a woor nga jël aw ñam jox ko ab miskin lelee ab miskin loolu mooy li jëkkoon am jëkk weeru koor di am waaye nag bi suñ borom mayee loolu it nga xam ni farataalagul ci nun ci force suñu weer weer wi ni woon dafa waxoon ni waaye nag waa antasuumu xayrun lakum mooy ku man wooral kum kum neexit mën ngaa jël aw ñam lele ko ay miskin waaye naka jekk nag newoon na waaye nag koor gi moo gën ngeen woor moo gën nit ki bu wéradee ci biir waru koor mbaa mu nekk ci ab tukki sunu borom may na ko mu bàyyi bis yi mu waroon woor ci jamono wéradi gi mbaa ci jamono tukki bi ba ci yeneen bis beneen bis bu wéree yeneen jamono bu wéree mbaa mu ñibbisi ci tukki bi bàyyi ba yeneen jamono bis yi ko rëccoon ci weer wi mu fay ko ci bis yooyu loolu suñu borom maye na ko ci ak mbaaxam ci biir maye googu nag borom xam-xam yi wóote ci ne waaw ndax kii tukki dañ koo may rek mu bañ a woor bàyyi gi ba yeneen jëmmi jamono wala day force ci moom am ñoo xam ne ñoo àggale ndigal li ci ni kuy tukki wërta woor ginnaaw xas na bay tukki rek koor gi euh, dog koor gi force la ci moom dafa war ba yeneen jëmmi jamono am ñu ne déedéet dañ may rek ngir jàpp ndalal ko waaye bu fekkee mën naa woor bu ko neexee naa woor ci biir weeru koor loolu ay wóote am na comme li ma waxoon léegi ni koor muñ lay tekki ci ay béréb ñu di ko tuddee weeru muñ kon muñ googu war nañoo xam lan lay tekki dëgg-dëgg ñu xam tuuti ci ak muñ ak ñor gum ñor ci nit ki mu doog a war a mën a taxawal def li ko boroomam digal mu mel ni muñ kàttan la bu yàlla defal nit ki di ko def ci ruug doomu aadama muy defar ay mbiram ci biir ak ci bitti am na ku ñuy wax al jundub ibnu muhammad dañ koo laaj ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy nga góox lu weex xat te du feeñ ci sa kanam lu weex xat nga góox ko te du feeñ ci sa kanam muñ mooy ñu di la def lu la metti te du doo wonk sa kanam sax desu ko ci xam ki mën a muñ dëgg dëgg noonu lay mel am na ku ñuy wax zënnoon laaj nañ ko ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy sori sori yi ñu lay tare ak bu dara mettee nga dal jamonoy ñàkk nga feeñal ak doylu loolu mooy muñ ñàkk lool te kenn du ko xam ci yow dara metti lool te kenn du ko xam ci yow muñ ba li ñu lay tere nga fas yéene doo ko def loolu mooy muñ am ñu ni muñ mooy dara di metti nga jàppe ko na ngay jàppe lu neex loolu na day mel ni dafa xaw a jomb nii waaye nag am na ndax sëriñ bi ci jamono yu tukkib géej gi da daan sant dafa nekkoon ci ay métit waaye ci biir métit yooyu yépp nii waxuma la sax mu jam ci muñ ko nii waaye ak cant la ci daan boole ngir xam la cay mujj kon ndekete am na ci ak muñ am na ñoo xam ne sunu muñ àgg na ci ni ñi muñe lu metti lu lu neex nañ koy jàppe rek lu naqari la bu ñëwee jàppin woowu lañ ci am mooy lu lu metti ñëw nga di ko muñ yemoo ci muñ gi ñàkk ko jàmbat waaye dañ cee boole di sant sunu borom ci def teg gim teg loolu loolu ab martaba la boo xam ne des na càgg kon muñ dafa doon ci xeeti jaam yàlla yi ndax yàlla dafa digle tere lim digle mu dige ci xéewal lam tere it mu tëkkoo ca ci ay naqar waaye nekk te ak jàmm yàlla dëgg ci ñaari tomb rek lañ koy tënk mooy bu xéewal ñëwee nga sant bu lu naqar ñëwee nga muñ ko kon suñ borom dafay xool jaam bi jamono bu ne ci diggante ñaari tomb yooyu mooy bi mu ko defalee xéewal mu ngi koy xool ba xam ndax sant na ko ca anam gam ko gam war a sant waaye bi mu ko tegee lu metti yi dana ko xool ba xam ndax dana ko muñ ca anam gam ko war a muñ ndekete kon ak jaamu yàlla génnut ñaari tomb yooyu muy muñ ci jamono bi muy naqari ak sant ci jamono bi muy neex